sunu tànk fii tey Touba mooy ñëw gis xalif bi indil sunu ndimbal pour euh, màggal bu ñuy dem euh, tey délégation ko ko CSS moo fi ñëw cette délégation bi représenté na maanaam CSS yëpp maanaam mu nan ne huit mille salariés yëpp tey ñu ngi fii par rapport ci délégation parce que ci délégation bi di ngay gis euh, direction yëpp di ngay gis partenaire sociaux yëpp. aussi lu gën a rëy ci euh, ci kii bi tey mooy dañu ànd ak sunu directeur général monsieur Vincent Leroux mu ñëw gunge ñu gis xalif bi toog a xalif bi waxtaan ak xalif bi wax ko yëg-yëgam ci këru diine yi ci màggal bi di ñëw aussi en dehors cela aussi ñëw sàkku ñaan aussi am na ay taalibe la ñëw sàkku ñaan ci xalif bi ci campagne bu ñu dem buy démarrer au mois fin novembre incha allah te ku ne démarrage campagne nga xam ne ah, démarrage bu mag la ci compagnie sucrière sénégalaise maanaam foofu la liggéey bi di tàmmali maanaam usine bi di démarrer commencé produire sucre te ku nekk production sucre da nga xam wax ni atteindre ay objectif parce que ñu ngi liggéey ak nguur Sénégal pour di ko jàppale ci autosuffisance alimentaire ñu suñu wàllu mbir ñu ngi jëm euh, liggéey ci autosuffisance alimentaire en sucre ren maanaam atteindre na objectif boo xam ne macha allah xam naa c'est une premier fois. Euh, mooy aboutissement projet 450. je pense que CSS yàgg na di def loolu benn tradition bu ñu renouveler la tey ñu ngi indi vingt tonnes suukar ak ay suukar boo xam ne suukar bi mooy moom lay produit ñun en tant que moom la ñu am comme euh, produit comme moom lay indi tey waa Touba ak ndox. xam ne ku ne màggal ku nekk soxla na ndox tàngoor bi apporter ay pack ndox aussi pour euh, pour joxe ko taalibe yi ci jour màggal bi